asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah mercredi 13 janvier 2021 dañuy ñëw ak ci kaay suñu lamb la ñuy xëy doore ko yëglikaay bi di suñu lamb nag moom tey fa mu xëy fësati wala la mu xëy fësal ci xëtam mu njëkk mooy combat royal ba dox ci diggante mu duloo ak Ama Baldé mu mel nekk nag combat ba moom soo bëggee dégg-dëgg ba mu taxawee ak léegi mat na maanaam at ak benn bu weer maanaam treize mois loolu la ñu yëglekaay bi xëy tey wax mu mel ni ki nag combat ba fi mu nekk nii moom am nga moom yaakaar nañ ne dana ne waaye la ca am ba des daal mooy suy am damit daal loo ci mën a dégg moom huis clos mënu ca bañ a ñàkk loolu mooy li nga xam ne nii moom daal lañ ca gis mel ni ki nag ki nga xam ne nii moom moo di Bécaye Mbaye moom te bokk ca lig Nicolas moom itam daal la mu xëy di xam ne daal ne maanaam dàquñu ca huis clos boobu combat fi mu nekk nii la ñuy xaar nag wala keneen xaar moo di lig Nicolas ngir mu joxe ay garantie keneen koo xam ne nii moom tamit daal tëgg na làmba ju mag a mag muy Gaston Mbengue moom moom ne na fi mu nekk nii dafa pare ngir huis clos ba te bu pare nag combat bu mu fas yéene ubbee mooy diggante Eumeu Sène ak Lac numéro 2 ne na la fas yéene ubbee te du ca yem Diène Kaïré tamit ak ka nga xam ne Modou Modou Anta moom la ca fas yéene boole ca bés booba deuxième affiche am war a war a dox ci diggante Balla Gaye numéro 2 ak Bombardier loolu mooy waxi la nga xam ne nii mooy waxi ka nga xam ne moo di Gaston Mbengue ci sunu làmb ba tey bu ñu continuer la la nga xam ne bi war a dox ci diggante Modou Lo ak ka nga xam ne moo di Ama Baldé ca fañ ko fas yéene amale muy ci arène nationale mel ni ki nag giri daal la mu jàpp mooy booba sit moom wala foofa daal jàpp na ne daal fi mu nekk nii fi boog mu nekkoon fi mbër daan bëre ba la yàgg mu dem bitim réew toog fa muy Khalifa Ngiraan xëy na tey di wax ci yëglikaay bi di sunu làmb la mu xëy di wax nag nee na dellusiwaat na Sénégal te itam dellusim gi nag li mu fas yéene daal mooy pare ngir bëre ñëwaat na tamit ci biir yëglekaay bi di fàttaliku digganteem ak bàcc seras combat boo xam ne daal doxoon na ci la nga xam ne nii moom moo di seen diggante yëglekaay bi xëy na tey ñëw ca loola mel ni que nag combat booba daal jàpp na ne ci carrière am daa mel loola moo ca dàq wala mu dàqal ko ca yëglekaay baa xëy tey dalal ko seq mu waxtaan wu yaatu ousa numéro 2 moom ñu xam ko bu baax baax mu nekk écurie Fass wala mu nekkoon fa boog yëglekaay bi ne na boo xoolee lu toll ci fukki at a ngi yoo xam ne nii daal ousa numéro 2 soo bëggee dégg dëgg wàccul ci géew bi bëre sept ans xam ne tamit combat gisu ko fenn loolu yëglikaay bi xëy na wax nu ko wala sept ans yoo xam ne daal ay victoire moom tënn ko ca tëj wala combat wala fukket yoo xam ne toog na ko amul la nga xam ne moo di ndam mel ni ki yëglikaay bi nag daa jàpp ne bu doon Ousa numéro 2 moom vitesse la yor di mu nekk nii ci perte de vitesse la toll maanaam daal taxaw la def wala mu ngay ralentir sunu làmb xëy ñëw wax nu lu mel ni ki noonu soose maana njaaxum ba ci sangu njaan yëglikaay bi ñëw nañ tamit ci ñoo xam ne ni daal maanaam daal seenug jógaat lees di xoolaat nu ñuy def ba mu demee na yëglikaay bi di sunu làmb xëy wax nu ko buñ fa jógee dañuy dem record record moom la mu xëy di xamal rëg-rëg daal la xëy tey seqal waxtaan wu yaatoo yaatu rëg-rëg moom la mu xamle daal fa mu nekk ca New York daal dana fi nekk ni moom signé na lu toll ci 27 wala boog signé lu toll ci 5 combats xam ne daal ci 27 mois la ko war a jongante yëglikaay ba xëy na tey dalal ko rëg daal la mu xamle daal nee VIP yi ta nga xam ne ni ñooy seen magi mbër yi nekk ci làmb ji moom loo ci mën a dégg moom àndu ca wala boog gisu ca boppam waaye tamit adversaire am ba nga xam ne nii daal moom la fas yéene dalal dajen dajenteel daal rëg-rëg daal daa mel ni mu ngi koy dànkaafu de ca la nga xam ne nii moom moo di MMA ma mu mel ni ki daal fi mu nekk nii moom soo bëggee dégg dëgg moom rëg-rëg boo bëggee dégg dëgg MMA lay jongante kon defe naa ko rëbb sénégalais war nga koo ñaanal ndax ka muy jonganteel Cameroun la dëkk waaye li ma leen di wax nag yéen ñi suivre la nga xam ne nii moom moo di suñu revue bii nga xam ne nii moom mooy journal de l'arène su ngeen yeboo xaar di ngeen ci gis beneen soxna boo xam ne ni danañ ci fas yéenee ànd ñu koy wax Ami Diouf la ma ci jaaxal nag metti su moom daa mel ni PDC saalum saalum DC Saloum saalum chef de production Saloum Saloum caméraman Saloum Saloum ki fas yéene toog ak man fii sax Saloum Saloum la mu mel ni ki moom benn bawal bawal nekk ci biir ay saalum saalum mel ni wenn bëy ci biiru bukki ndax loolu dina wóor salaamualeykum wa rahmatullah maa ngi leen di nuyu di leen ziar téléspectateur Equivox TV yépp waa dégg ngeen nag fi ma daane la du mën a ñàkk parce que nag y a beaucoup de saalum saalum ici fii ci biir Equivox moom xaw ma nag télé baa fa dëkk xaw ma waaye loo ci mën a dégg nag jàpp leen ne moom Equivox c'est pour tout le monde waaw maanaam yëfu Sénégal ak fu ci sénégalais mën a ne bu ñu sañoon da ngeen ci gis seen bopp li tax nag loolu ma wax leen ko mooy si d'ici quelque temps incha allah rabbi di ngeen ci gisaat yeneen mbir yoo xam ne ni dina kawe seen njort ndax comme li ngay wax rek olof a koy wax ku yokkul yaa wàññi dox na soxna soxna ami Diouf la defe naa waa Diouf la sant dëkk Gaye Ndiaye baa bu Ngom ak Momo Ngom muy nuy waa Gaye suba di ngeen ko gis fii ci journal de l'arène bi mu ñëw nag xam nga comme Gaye Ndiaye la war na mën a xam làmb mais nuyu naa leen yéen ñëpp waaw bu fekkente ne du tubaab bu ñuul xam nga réew mi daa tubaab bu ñuul nag looloy problème bi may béggee ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm loo ci mën a dégg nag tey sunu làmb xëtam mu njëkk xulle fa mu xëy ubbee mooy Modou Lo ak Ama Baldé combat royal boo xam ne treize mois bañ ko taxawalee ak léegi boo xoolee loolu la ñu yëglikaay bi wax mais léegi nag combat moom am nga fi mu nekk nii yaakaar nañ dana am promoteur ba la ñuy déglu mën di ay garanti waaye la ca nekk daal mooy combat boobu moom fi mu nekk nii moom ñëpp a koy xaar askan wépp bëgg a gis diggante Modou Lo ak Ama Baldé arbitre suuf la ñu jox ñu bëre loolu nag ñu ngi ñaan yàlla yàlla na ko yàlla def di ñaan yàlla Luc Nicolaï mi ko tëgg yàlla na ko réussir moom yàlla def muy suñu nit di nit bu baax di ko nuyu du nuyu wili doomam di nuyu waa Mbuur yépp waaye combat boo xam ne daal bu nar a rëy lay doon Gris Bordeaux nag la dalu dem xelam mooy fañ ko bëgg a defee mooy arène nationale ba daal daa jàpp ne boobu combat ndax dana arène ba dana ko attam ah ñu wax ne nag moom mooy pare pare na ngir huis clos ba ginnaaw bi mu paree nag nee na combat bu mu fas ubbi mooy diggante Lac ak ka nga xam ne moom mooy Eumeu Diène Kaïré Modou Anta muy boo xam ne defe naa ne ku ko andil amateur yi ci moom da nga leen andil lu leen neex suñu papa Gaston Mbengue muy làmb joo xam ne defe naa ne ku ne gis na ñaari mbër ya fa ñu jot a goo jaar ci waxante ak muy lag ak boo xam ne mënta yomba waaye Modou Anta Diène Kaïré itam ku ko cay xaar mu yomb boo yeboo xaddi ndax Modou Anta dafa jiitu Diène Kaïré ci làmb ci côté palmarès boo xoolee mu jiitu ko ci bu baax a baax tey nag mu jën këri liggéey ba toll ba ba ko mu may ko loxo ñu war a bëri defe naa nag yow mi mayee loxo boo sañoon ko nga may loxo ah doo ko xëcc ba mu loxo bi mu dëgër ba mu lay xëcc ngay tàbbi ca ndox ko moom Modou Anta waaye ndax dina ko mën a bañ foofu la mbir mën na ndax jéen itam dina mën a jàll dañu yónni yàgg noonu la demee bu ñu continuer ah mbër boo xam ne newoon na fi xalifa ngiraan defe naa ne ku ne xamoon na ko su ma jumlee Pikine Nord la woon yaakaar naa ne moom nekk na fi à l'étranger lu yàgg Espagne ba yàlla def mu ñëwaat ci réew mi nag dina pare ngir bëre waaw ma ko nag ginnaaw pare nga ngir bëre moom dellu ca din ya rek ak ca saal ya entraîné na ba wow koom ndax lamb ji moom te di boo toogee ñaaret yoo bëréwul wala ñaaret yoo voyage ba jàpp juróom moom jàpp ne boo ñëwee da nga fi fekkaat ay xale yoo xam ne nii moom ah dañuy pare ci côté yëpp di bëgg làmb lool lool lool waaye nag mbër la moo xam ne vraiment bi mu ci toll wane na boppam ñu koy nuyu di nuyu waa géejawaay yëpp parce que defe naa mu ngi yeewu géejawaay waa Seydina Laay maa ngi koy bëggee Ousa numéro 2 moom tamit yëglikaay bi xëy na tey dalal ko moom daal perte de la yëglikaay bi seetlu ci moom maanaam fukket yoo xam ne daal amul combat ah ak sept yoo wala boog fukket yoo xam ne amul victoire ak sept ans yoo xam ne toog na ko bëriwul Ousa numéro 2 demoon na bañ koy nommé wala ñu koy tuddee la Ronaldinho de l'arène ndax lan mën a bëreem mën a waaw dala daan may ndigg ak tànk yëpp waaye nag boo xoolee at yëpp gisuñu ko mu wàcc ci làmb ji bëre muy xale boo xam ne vraiment ni mu doon bëree naa ne nag ah na liggéeyaat xëy na bu liggéeyaatee war na mën a bokk ci biir la nga xam ne nii moom moo di làmb ji ndax làmb la mbër la ba nga xam ne nii vraiment amul taay bu rëy waaye nag bëre moom ko koo dana jafe lool ñetti mbër yoo xam ne itam ah yëglikaay bi xëy na ñëw ci ñoom muy Socé Mané Njaaxum ak Sangu Ndian ñi ñoo xam ne itam ah am na fu leen làmb doon xaar fi mu nekk dafa mel ni ba tey seen carrière daal dese naa mel nañ ko doon xaare waaye xëy nag bu ñu liggéeyee gën a ñëw dinañu gën a wane seen bopp kii moom carrière wu làmb ba yemu ca dafa entamé beneen muy rëg-rëg foofu record la abu ndur a seq moom waxtaan nee na fi mu nekk nag signé na boo xoolee cinq combats yoo xam ne ci vingt sept mois la ko war a jongante ah muy loo xam ne vraiment daal dañ koy ñaanal mu réussir ko ci combat MMA yi parce que tamit loolu defe naa baax na trop tey du làmb ji rek la mbër mi war a mën di def moom defe naa bi Bombardier ubbee buntu bi moom Reug bokk na ci xale yi nga xam ne ak ku mel jëkk nañu engagé wu ngir MMA defe naa ne def na fii benn combat MMA bu rëy rëy fii nga xam ne moom mooy à Dakar yaa ngi dégg muy loo xam ne nii kenn dootu ko fàtte tey nag mu ngi war a dajeek benn Camerounais ñu koy ñaanal yàlla maam ci ndam et puis combat am yëpp yàlla na ko gagné yoo xam ne loolu a yokk turu Sénégal rek parce que tamit dem ba euh, au niveau international di fa jongante MMA yu mel ni ki noonu defe naa loolu dina baax ci réew mi am solo la waaw huis clos ba moom ne na d'accord ci ma ne ko ah, bëri nga ciy morom huis clos moom xam naa ndax rëg-rëg mu wàcc ci géew gars yi bëgg nañ koo gis mu siif uti ca nga ne mooy moom moo ah mbayang lu mu way loolu xulle képp kuy dund làmb da nga koy bëgg a gis waaye nag ku amul yaay nàmp maam ku amul la nga bëgg am la fa sës ndax bu dee huis clos fi sës des na ko def ngir ngeen bëre lool mooy li nga xam ne ni moo fi ne loolu kon tey moo fi ñëwoon tey ci yëglikaay yi di nuyu ñëpp di ziar ñëpp di naan ñëpp jàmm di nuyu waa Sandaga waa Petersen Sandaga nag bu ma ko waxee képp ku fay jaaykat ak loo fa mën di liggéey maa ngi lay bëggee Petersen itam ñoom Mor Diouf ak seen mag ah Modou Lama Babacar ñoom ñëpp maa leen di bëgg parce que ñooñu des fois dañuy jël ay yër di ma jox may sol du mën a ñàkk ma di leen bëggee di leen safoo ñoom jib seen Cheikh Lambaay gars yi nekk Petersen yëpp yëpp yëpp yëpp maa ngi leen di bëgg képp ku fay wax rek di jaay ngay ouvrier loo mën di liggéey maa ngi lay ñaanal yàlla xule yàlla na yàlla yokk la di nuy tamit ki nga xam ne nii moom mooy ah tuuti yaay sar di ko bëggee Cheikh Bass Khadiros Ndiaye dëpp ca Allemagne moom tam du ko fàtte di jigéen di ma jàppale bu baax a baax ñoom Ndongo Fall Serigne Fallou ñaa acteur film bu mag ba ca Maroc moom tamit duma ko fàtte xule di ñaan Sénégal yàlla na fi yàlla def jàmm di ñaan corona bi yàlla na dem ak jàmm